dal leen ak jàmm mbokku internet yi ki fi divorcé woon di Adja Diallo jamono ji ma nga ca 2STV mel nipp lamp bu leer nañ jamono ji luqi ne ay bët yu bari ba mu duggee ca biir 2STV euh, ba léegi noppiwul benn yoon ci di wane njaayam lii lay tax ba ñu bari di ko bàyyi xel lool mu nekk jamono ji kuy attiré lu bari ci seetaankatu télé yi rawatina ña nga xamante ne dañu ko sopp dalee ko ca Sina Bamba ba ca télé El Hadj Ndiaye bi soxna si ba mu jógee ko ca sëyam ba ba fi mu nii gën a yanj lool moom Adja Diallo nekk ki nga xamante ne nii moom moo remplacé ki nga xamante ne mooy Yaay Awa mi fa jóge woon ci lu yàkkul dara dem ca TFM te coow la ca toppoon umpalewul waa Sénégal jamono ji moom Adja Diallo jël na place Yaay Awa ba fu toll nii bokk na ci équipe kii di Omaro soxna si Ibou Touré ba woon jamono ji ma nga ca kaw plateau ba di nes nes yi di fësal taaram ba ànd kooko ay xeetu colin yu jongoma présentatrice bu bees ca biir 2STV Adja Diallo soppi na xar kanamu émission ba ànd ak loolu gëna a yokk lool ñi nga xamante ne ñooro doon seetaan daanaka mën nañu wax ne teewaayam lu am solo la lool ci wetu kile di El njaay boroom borom télé 2STV ngeen jëf. <laughs>